hello Gambia it's still summertime beach so. comme nu ma leen ko daan defalee saa su ne tey nag ñëwalaat naa leen di Palma beach so. highest population in the world. is it not China? China. I think it's Nigeria. <laughs> uh, which year did the Gambia gain republic? 1972. Nope. Republic. Yeah. 1970. Okay. Thank you. Duma di det simbolo baro asina tere domo ifenyatu sembo bi asina gudinyo nawandur fajanyu tasaro ngane dad bi seril la dukare kana moria safara safara mj fayna safara ma ñew sa koñ ma barde lola boy yeb de topama sude sama gengi nga heet kay ma won la nakala ngane yaay king dul tey ma won la may gaynde sude faste nge nga sedna seto seta gisaguma kumay meaw sa jamu ji ye gisuma kelen purtaman pourtant man gis naa façon bu ne pourtant man gis naa si yow laa doon ñaan yàlla ñaar ñi mujje àndoo gis weer baa ngi kuy ndem ak baayam seetoo seet yaa ngi xoolal say morom. Africa have the strongest currency. ah ko South Summertime Beach so nii lañ koy defee every Sunday kon nag duñ def dara dugg si with our questions let's go. maa ngi tudd Tina. lan moo la andi tey si bëj bi. oh dama ñëwoon rek pour enjoy cold breeze bi rek ah. génn ak ah, breeze yi kër bi. so ah, naka nga nekk di enjoy ne sa sooma. Hmm, suma sooma bi maa ngi koy enjoy xam nga ñu ñoo nekk ñu sit doog a sit so ñu ngi xaaraale resort yi di enjoy waale tuuti. I wish you good luck. thank you. so dama la amaloon. ok. Um, which country in Africa have the strongest currency. The strongest currency? Ah, I don't know. okay. Which country uh, have the highest population in the world? Is it not China? Mm. Maybe China. Oh, really? Yeah. who was the last and the first Gambian governor? Oh, I don't know that. You don't know? Which year did the Gambia gain republic? Republic, 1970. Thank you. High five. Bye. Bye. <laughs> Let's go. Gambia. yaa ngi fay. man Dino laa tudd. Dino lan moo la andi tey si biir. man dama ñëw pour Pajero rek ay eh, nga enjoy smart nii nii nii yaa nga. Ah. waaw sa nii nii nii kese. yee. naka nga nekk di enjoy ne sa sooma. sooma bi sooma yi ya, ma ko over enjoy ya bi laay. bu baax a baax bu baax a baax sax. ok dama la amaloon question. waaw waaw question nga lan. what country in Africa have the strongest currency. what country. in Africa have the strongest currency. in Africa. non xawma xawma. Okay, which country have the highest population in the world? China. Are you sure? Yeah. Mm. Yeah. Okay, who was the last and the first Gambian governor? The last and the first <laughs> Gambian governor. I don't know. Are you sure? Yeah. Mm, which year did the Gambia gain republic? 18 February. 1955. Are you sure? Thank you. Trap. Anybody else? Nice. Jama, my Uber friend. It's still our show. Let's go. We interview everybody. Man, def man Alaaji. lan moo la andi woon si. foo rek. foo nii Wow. rek. waaw dama la Which country in Africa have the strongest currency? Yeah, like okay. Ma bara ka we. Like boy. It's still Gambia. Let's go with our time, bishop. How are you? I'm fine. Nga tudd Alpha. Lan moo la andi ah ñëw am suma boppa rek xam nga Environment, bi dégg yow dégg def dee baax nga ñëw xam nga xam nga nan noonu yee eh. so dama la amaloon te question ah ay wax ko su su neexee ma ansa su neexut nag yaa ma gën xam which country in Africa have the strongest currency ah right now the strongest currency maybe I can say safer because their currency is not at one country so I, maybe I can say safer so I don't know Africa, uh, which country has the highest population? In Africa? I think it's Niger or Nigeria, something like that. You don't cross. <laughs> uh, which year did the Gambia gain republic? 1972. Who was the first and the last Gambian governor? Yeah. Well, my sister, I don't know that one for you. Yeah. Okay, thank you. Trap, let's go. It's still summertime beach so so nag duñ def dara dugg si biir waxtaan ak we're asking questions and answers. So duñ def dara laajte ñëpp. This is how it goes. Salaamaaleykum. Bro, na nga def? No, no, no. Bro. Na nga def? <laughs> Jaabare. Jaabare ma laajte. Na nga def? Maa ngi pare. Noo tudd? Pombe laa tudd. lan moo la andi tey si beach bi. dama ñëw peexal suma ak suma njaboot yi waaw. xam nga Gambia tuuti rek. ban dëkk si Afrique boobu la xaalisam gën a dëgër. Sénégal. Sénégal. Mhm. jërëjëf. ok thank you. Sister, how are you? Fine. moo la andi tey. mais dama ñëw pour am to the phone rek. tuuti fond rek laa ñëw am nii. tuuti fond. so naka nga nekk di enjoy na ah maa enjoy moom sant yàlla. so dama la amaloon question. what country in Africa have the strongest currency? I don't know. You don't know? No. What country have the highest population? In the world. I think it's Nigeria. It's Nigeria. Yeah. Which year did the Gambia gain republic? 19 um 1977. Are you sure? Yeah. Who is the last and the first governor? I don't know. Thank you. Trap. Let's go. It's still our show. salaamaaleykum sista naa def kii fu dem boo naa def. jàmm rek xaaral ñu jàmm. boo na nga def. pour am sama rek. ban dëkk si Afrique la xaalisam gën a dëgër. ne ko Africa. ban dëkk si dëkk moo gën a bëri mbooloo. Nigeria. jërëjëf thank you let's go it's just an easy and educated questions so we just have to go roll with our questions and talk with everybody it's still summertime beach show na ngeen def Ah, na nga def waaw ah, ñu ngi si jàmm na nga tudd Samba laa tudd lan moo la andi tey ah ñëw pour changer air rek dama la amaloon question ban dëkk si la xaalisam gën a dëgër Sénégal Sénégal Yeah. da Sénégal ah parce que Sénégal la ban dëkk si Afrique moo nit ban dëkk Mali. ok jërëjëf yow naa nga tey. man Amadou laa tudd. lan moo la andi tey. tey ma ñëw Gambia rek changé air quoi dafa tàng. ah dafa uh-huh. soo lan moo tax nga gis bi nga préfère parce que Gambia dafa neex quoi. dafa mm-hmm. lan moo neexal Gambia. am na jàmm quoi <laughs> am na jàmm na salaam. <laughs> ban dëkk si Afrique moo gën a bëri moo gën a bëri Mali. Mali. Uh-huh. Ah, ban dëkk la xaalisam gën gën a dëgër Sénégal. waaye foo leen teg loolu ah Sénégal c'est c'est c'est les c'est Sénégal quoi c'est Sénégal. <laughs> jërë ngeen jëf loolu ngeen def man Basirou. lan moo la andi tey si ah dama ñëw nii nga stroll nii rek. stroll. yeah. so la which country in Africa have the strongest currency? strongest currency. ah to be honest like I can I can. How Which country in the world has the highest population? Highest population, Nigeria. It's Nigeria. Okay. Who was the last and the first governor? Last governor, which country? In the Gambia, the first and the last governor. The first and the last governor. Governor, um, I think it's Sadar okay. No, no. <laughs> okay, thank you. Well, I don't know. All right, <laughs> thanks, Naif. I'm fine, how are you? I'm good. What's your name? I'm Sonny what's brought you in the bit today? I'm here to hang out with friends. How are you enjoying your summer? Smooth so far. Okay, I have a question for you. All right, go on. What country in Africa have the strongest currency? The what? Strongest currency. Strongest. I'm going to say South Africa. Are you sure? Mm, not 100%. <laughs> Which country have the highest population in the world? In the world? Yeah. China, of course. Are you sure? 100%. How about which year the Gambia gained Republic? Nope. Republic? Yeah. 1970. Okay, thank you. Trap, what's your name? I'm Sleiman. Okay, what's brought you in the beach? Excuse me? What's brought you in the beach today? Well, I just came for a stroll. You know, it's Sunday. It's lively here. Oh, what is the reason why you see all this beach and you prefer to come here? Because I live around here. Are you sure? Yeah. Okay, I got a question for you. Okay. What country in Africa have the strongest currency? The strongest currency? I would say South Africa. Are you sure? I'm not certain. Are you sure? I'm not sure, but I think it's South Africa. Which country have the highest population in the world? In the world? Obviously, it's China. Everyone knows that. Why everybody saying China? Because it is. Who said you it's China? It's, do, do research and you'll see. Yes. <laughs> Bettu ngeen am na ne <laughs> I think it's China anyways. Who was the last and the first Gambian governor? Last and, and the first Gambian governor? Governor. I don't have any idea about that. Okay, thank you. trap. I don't know xam lu tax ku nekk di China China China but duma def dara ngeen dem comment section you all check and see I think hmm, it's not China. Ebel. lan moo la andi. non damay si biir bi nii rek. nga ni. damay doxantu nii rek. enjoy ne sa sooma. Mango enjoy mango yek dance yëg suma dama la question. ban si Afrika, mu la xaalisam gën a and let me guess. waaw. let me guess. ah lay nëbbatu. Mm, ah lay nëbbatu. Africa. um let me see. Ah, ah, ah ah, ah, Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah Ah, Libya. Wait, I'm camera. na kong, na mo kong. Thank you. Let's go. indalatuma leen benn question bu yomba koy dëgëral <laughs> let's go and still ask our questions it's so Nah, sudah. Gaya lagi, gaya lagi, gaya lagi. Nah, معايا كول non dara jàmm rek waa ah dama la amal question waaw ah, ban question la si Afrique la seen xaalis bi gën a dëgër non loolu ko ne ray naaw nag dëgg-dëgg xamuma ko ban dëkk bi nit bi man ko ne Nigeria la Nigeria déggu ma loolu Nigeria la booy Nigeria. Nigeria luy Nigeria. Nigeria Nigeria. Ah. ok yow trap. yëpp mu ne Nigeria I didn't know waaye nag gannaaw loolu bu programme bi dinaa leen waxal leeral leen our questions. lan moo la andi holiday moo indi woon fii nii dama moo ma ñëw. nga ne. bii ñëwoon ak kontaan rek tey na dama xam ne tey sonde la daf ma dara lu ma tax a. soo lan moo nekk reason nga gis bi ceeb nga préfère pour ñëw. Hmm? lan moo nekk reason nga ñëw si nga gis bi ceeb nga préfère pour ñëw fi. dama gis dama dama gis ni mu fi bëree at nu mu kon dama ko yaaga waan fi dafa yaaga ne. ban dëkk si moo gën a bëri nit. non xamoo ko nag dëgg ban dëkk si Afrique la seen xaalis bi gën a dëgër. wala no xamuma de non xamuma nag jërëjëf ok na nga def na nga tëdd mun dégg ah wala ma nekk lakay dégg man man mënuma wax comme yéen loolu di wax mu ne moom mënut a waxee ñun naka leen dee waxee na nga def jaama MJ lan moo la andi tey si bij bi bij bi soo demaa ah xaaral ma free main temu. dëkk si Afrique la seen xaalis bi gën a dëgër. man si man moom Gambia. si Gambia mais seen xaalis baa gën a dëgër. waaw si man. ok ban la seen seen dëkk bi gën a bëri nit. gën a bëri nit Chinese. jërëjëf léegi yow nga ne nga. may ñu ko. duma rabdi det simbolo baro assina tere domoy feeñatu sembo kabi assina guddi ñu naawandur faja ñu tasaaro nga ne daat bi séeri la dukare kana moriya safara safara mj fayna safara ma ñëw sa koñ ma barde loola booy yëpp de toppama su dee sama gengi nga xeet kay ma woon la nakala nga ne yaay king duul tey ma woon la may gaynde su dee faste nge nga xeet kay ma woon la nakala aha kañ ay ay ay su yaay kay moom mooy gaynde <laughs> Let's go. It's still summertime. Boom. Wanare. Ah, si tamam ya. man fi. Na nga tuda? Man babu la tuda. Da mo la ani Man. Dama ñu xol dega bi rek, ñu mel rek. Ana ana yow awtan No, man ma awtan, man mang len na. <laughs> So lan mo nek reason nga gis bitch yeb nga prefer pour ñew fi? Han? Lan mo nek reason nga gis bitch yeb nga Ah. dama bëgg a ñëw rek dama bëgg a xool rek. which country in Africa have the strongest currency? Gambia. Gambia. mu Gambia. <laughs> which country have the highest population? Eh, America. hey eh, mun China. naka America dama daa China. <laughs> Who was the last and the first governor in the Gambia? Sister. dama wax keneen rek yow nga laajte gars yi loolu. Ah, boo de ana ah, ah, yow raafa. eh nekk ma raafa. kii mooy raafa. <laughs> yow yaa raafa. waaye ku ne. yow kay meññu ko de ana bëgg la waa télé bi gis la. man man Mola mi laa tudd. lan moo la arrêté. man lu ma andi si biti. ñëw xool nit yi rek seetaan lan moo nekk raison nga gis beach nga préfère ñoo préfère pour ñëw non I don't understand ok dama la amal question yes which country in Africa have the strongest currency I don't know um which country have the highest population in the world I don't know <laughs> why pare mo fii fu may dem naa def dama bëgg a ye dama bëgg a rap <laughs> waa xaar mal style bi jawas la tudd nga jawas nga yeb kolmi ustaz abada sa kolmi maraka sana make this cast i come all the way from georgetown i want make this shit if you talk so sit in jail why don't free pass you ah. hey bona jama ya, rek no tudd man alexander anol lan mo la ane ko bij bi ah ma ñu won doxantu ni rek xam nga pour collection fresh air bi ni lan mo nekk nga gis bij nga fi tak bij

Ah, Gambia la yaakaar ba bama ne Gambia rek parce fila fii laa Which year did the Gambia gain republic? Eh, sister, grade 9 laa am. Who is the last and the first governor in the Gambia? Allahu Akbar. Maybe jangan bi papaam la How how ma nag. Sama ma ko governor. Yo Gambia, you know, listening to this. Okay. We are from Boostown, you know way ya, central kam si si wona si dem ali family no eh ni jali jali be te do ma hay fanye bang jali jali be te do ma a bang baby girl come follow me ene ni nya wala nga follow ti hey fe man don crossi atana ka happy no jealousy Ayo gambia is this is your boy adede aka comfortable nigga way eh, central kam si family wona si dem give them some fire bro it you know hey hey hey overstay bila overstay bila a megala sen hani moman chop min man chop ja a chop kodo na boy pour gaspen la fo change non sense stop overstay don't change kadun do kana fem man change how many mark can stand and practice how many mark can stand and o'clock news kam fadale man rafiat hal sen hani moman chop kon do pere ya ya no break no fit me and my don't no break ugly boys don't bi ñepat break community game da no break do break I ko dama gol diga notamment eh sama big big step war ma ni man mais c'est papa mais ma taka comme kané papa fox sa block dina rite neuf in my gang we only five and my face I don't wanna see snitch as my bros king man papski yeah. this is fun time, so it's nice. Let's go. Sedna seto setat gisa gumakumay meow. sa jamu ji ama yee gisuma keleen pourtant man pourtant gis naa façon bu ne pourtant gis naa si yow laa doon ñaan yàlla ñaar ñi mujj àndoo yow laa gis weer baa ngi kuy ndem ak baayam seet yaa ngi xoolal say morom jug leen tey ko xam na nga jaayoo jaal Ya jara sagal ya jara tajul jayul taisab Islam man malatamu Sayyidin moram, Sayyidina yon Sulane Bagal dapat dis Everybody dollar ya sama ajana No, leave my space. This is my life and only. You said this is your what? This is my life and only. Okay, sit, dance. Okay, I'm gonna give you I'm a piano, okay? Okay. This one you call it Sata. Is it? Badimbu. just to have fun. which country have the highest population in the world. China. Are you sure? Of course. Which year did the Gambia gain republic? 1970. Are you sure? Who was the last and the first Gambian governor? <laughs> No, I don't know. Thank you. Yo. So yeah, yeah, would have school. <laughs> it's still summertime beach show. We go and talk everybody. Tey moom. mais fine. maa ngi la tudd. Mariétou. lan moo la andi tey si beach dama ñëw rek pour xam nga dañ ñëw holidays pour enjoy holiday bi rek. Mhm. dama la amal question. ah ok. Which country have the highest population in the world? Asia. Are you Yeah. Which year did the Gambia gain republic? In 1970. Are you sure? Yeah. Uh-huh, Who is the last and the first Gambian governor? The last and first Gambian governor. The last and first Gambian governor. naa nga tudd. Modou. lan moo la free sama mind bi rek. lan moo nekk nga gis bi nga préfère. ah. nekk reason nga gis beach yëpp nga préfère pour ñëw fii. non Palma moom dafa nekk beach boo xamante ni moo nekk sama beach même tey sax gars yi dañoo waxoon ne dañuy dem fa fa jaara ma ne non man moom dëgg dëgg Palma moo nekk sama beach you know suma suma beach yëpp fii laa ko dee defee daal suma suma yeboo. dama what country in Africa have the strongest currency. no, sis boobu wala. non nañ ko kuréel. <laughs> waaw taxawal taxaw ma wax ko kan. si olof. dëkk yi ban ban dëkk moo gën a la xaalisam gën a dëgër. réew aduna bi tuub wala. bana bana ban si réew mi ñan lañ seen xaalis gën a dëgër. si wool bi yëpp. ja kii naka la England England. Gambie soo man ak tey dama soon trop mooy loolu daal waaye ah, du def dara nag bala ñuy tàggatoo ñu wax leen suñ question yi guys and yi maanaam question mooy which country in Africa have the strongest currency ñeneen naan ma Gambia ñi naan ma Sénégal ñi naan Mali <laughs> waaye nag du dara parce que dama bëggoon na mbalax seen xel yi rek answer bi moo nekk lan Tunisia bu si toppam mooy which country have the highest population is what China am na ñeneen ne naan ma lii ak laa patati patata <laughs> waaye China nag mooy correct answer bi bu si toppam mooy which year di the Gambia gain republic moo nekk 1970 beneen question bi si toppam mooy who is the last and the first Gambian governor kooku du kenn ku dul Sir Framang yaa yaa beneen bi mooy which country in Africa have the highest population ñeneen nag dama buggoon a mbalax seen xel yi parce que am na ñu doon wax China ñu naan ma lii fekk ant bi mooy Nigeria ok guys question yi leen leen amaloon di leen jox dig daje ba beneen Sunday incha allah bye bye.